kenn du kontaanee masiba naaru laay waaye barki démb biñ fi ñëwee ñuy wax ci mbiru passeport diplomatique yooyu mooy euh, xale saay-saay délinquant bandi saagakat boobu nga xam ne moom la ñëpp xam ñu naan ko Kali Kaliphone Sall dañ fi génnoon weddi ñu ne mbiru passeport boobu du dëgg ak yeneen yoo xam ne waxoon nañ ko ci ba ñu ne nañ ko lijjantil visa mu génn loolu c'est avéré tey nag dañu leen di indil benn xibaar benn exclusivité bu bizarre Khaliphone Sall nee ñu heure bi ñu nekk nii di wax ak yéen mu ngi ci loxo yoon ndax dafa am benn xale bu jigéen métis maanaam boo xam ne juddoowul Sénégal boo xam ne daf ko doon jéem a violer ba duma ko ba gaañ ko ci kanam xale bu jigéen bi matt ko ba fi mu nekk ni autorités yi teg nañu Kaliphone Sall loxo voilà jot nañu loolu ci wéyu béy on a les informations am na lu bari loo xam ne ñu ngi koy xaar pour ñu mën koo jot suñu loxo pour ñu tas ko pour adduna bi yëpp yëg parce que ñun dañu nekk di ci éveil de conscience nekk ci dëgg te dañuy bëgg lépp lu ñuy wax rek doomu aadama yi man ko njariñoo donc Kaliphone Sall fi ñuy wax ak yéen nii mi ngi ci loxo yoon c'est exclusif les informations sont exclusives jàpp nañu ko mi ngi ci loxo yoon fii ñuy wax ak yéen nii ndax dafa am xale bu jigéen boo xam ne dafa bëggoon yegg ci kawam amaana sax yegg na ci kawam ndax du mën a ko ba gaañ ko ci kanam gi yépp xale bu jigéen bi matt ko donc information yooyu jot nañ ko te incha allahu rabbi c'est à suivre ndax dinañu continuer génne information yi pour adduna yépp xam genre samba boy yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di saaga nit ñi nii wër président de la république di def ñaawteef ak waxu ñaawteef rek lañ fi nekk minute bi ñuy wax ak yéen nii Kaliphone sàll mi ngi al gendarmerie non seulement delloo nañ ko senegal ndax reewandeem waaye léegi mi ngi siif xale yi jigéen yi di leen duuma te dégg naa ku ko wax mu ne moom Marème fay sàll mooy yaayam kenn mënalu ko dara mu ne ku ko téye da koy bàyyi donc Marème Faye Sall ñu ngi lay avertir ne la Kaliphone Sall bu génnee ci prison boobu te yoon deful yoon liggéeyam ndax sa ndax yow ak sa bras bu gudd ak sa jëkkër ak seeni ay manipulation ak banditisme vous aurez des problèmes très sérieux avec des Sénégalais pour muy leer Kaliphone Sall à la minute mi ngi ci kaso ba ndax làmmiñam bu ñaaw ak jëfam yu ñaaw yi nga xam ne moom lay def ak saaga yi muy def jël na doom bu jigéen dafa demoon boîte de nuit ak ay xale yu jigéen ci biir dem boobu mu am koo xam ne mu nax ko ci jël numéro xale bu jigéen bi doxaanante xale bu jigéen bi ndax xale bu jigéen bi ba yóbbu ko këram daal di tëj buntu yi castre buntu kër gi yépp bëgg a tëdde xale bu jigéen bi ñu xeex mu matt xale bu jigéen bi amin xale bu jigéen bi matt ko moom mu duma xale bu jigéen bi ba kanam gi néew parce que tout simplement dafa bëggoon def teef ak doomu jàmbur xale bu jigéen bi permettre ko ko donc mu jël ko duma ko gaañ ko guddi ba gendarmerie daf leen bàyyi ñu dem def defi test ADN bi ñu ñëwee dégg naa jàpp nañu Khaliphone Sall mi ngi ci seen loxo à la minute donc dañuy bëgg ñu leeral sénégalais yi encore une fois Marème fay Sall dañ lay avertir et avertir sérieux sérieusement que Khaliphone Sall c'est pas une personne qui mérite d'être en dehors de la prison ndax déjà yen yéen a ko jël élever statut am d'insulteur ngeen def ko nag insulteur international reçu par le président de la république insulteur ngeen élevé ko def ko insulteur international reçu par le président de la république ñu ngi leen di avertir nag di leen dànkaaf ne leen xale boobu bis fu ñu ko gis na yëkkati loxoom yi sénégalais yéen a ngi may gis sama loxo yi mi ngi nii ma yëkkati xam nga amul benn matt-matt mi ngi nii ka pour ëllëg ak si biir buñ koo génnee kaso bi mu daw gaaw rek génn kaso bi ne waaw day ñëw day wax na yëkkati loxo yi def nii ndax matt-matt bi ñun xam nañu sax fa mu nekk ci loxo bi donc pour muy leer dama ne Kaliphone Sall saagakatu doomu aadama yi moom ma nga Dakar nee nañu nekkewu fa lu dul di def lu ko neex jigéen ñi ne moom doomu Marème Faye Sall la lu ko neex lay def donc encore une fois pour muy leer Khaliphone Sall mi ngi ci loxo yoon voilà donc euh, as we speak en attendant tous les vidéos et les informations de la fille dinañu continuer ci li nga xam ne moom la ñuy def toujours di yéete di yeete pour doomu doomu nit ñu baax ñi ñi nga xam ne am nañu nopp dégg-dégg pour ñu dégg ñaawteef yi nga xam ne moom la Macky Sall ak ñoo ñoom nekkee ci Sénégal parce que xam nga dans un pays sérieux des personnes comme Khaliphone Sall na devaient pas être libre dans les rues ba kooku di yor otoom di ci dugal ay doomu jàmbur di leen yóbbu fépp ci dëkk bi ginnaaw loolu ma indiwaat encore beneen exclusivité beneen exclusivité ma indi leen ko bii mi ngi euh, nekk mi ngi l'intéressé de cette exclusivité mi ngi tudd Ablaye Ba Ablaye Ba c'est un principal de collège de Agnam dëkk bi Farba Ngom dëkk Agnam proche de Farba conseiller de Moussa Bokar Thiam mooy ki nga xam ne moom la Macky Sall tabb fan yii def ko ministre Ablaye Ba moomu moo jël vidéo ay awraam vidéo boppam nii ba mu baax jël ko yónnee ko ay mineur loolu tamit mi ngi fii du ñu génnee yenn image yi ndax euh, censurité euh, euh, Facebook du ñu génne yenn image yi waaye Ablaye Ba moo nekk nii yéen a ngi koy gis du ma génne yenn image yi awra yi mënuma koo génne ak vidéo yi ndax Facebook da koy censuré mais Ablaye Ba moom ndeysaan mu ne merci de me répondre tu veux bousiller ma vie maanaam bi ñu demee pour attaquer ko ne ko yow vidéo yi nga jël di ko yónnee di jël say awra di ko yónnee ay doomu jàmbur fan nga ko teg moom Ablaye Ba mu ñu ne ko na fexe mu bàyyi jàngale bi parce que koo xam ne day violer ay doomu jàmbur yu ndaw nekk ci ay xale yu ndaw di génne say awra ak say vidéo di ko génne ñu ne amuñu euh, pour yow ngay jàngale